waaw wax ji am na solo coach mais bu loolu weesoo ñu daal di wax ci xale boo xamante ni mun naa ni tamit bokk na ci ndaanaanu làmb yi surtout ci côté lutte simple euh, mu nekk franc donc année yi passé mu bokk ci révélation yi euh, yàgg participer ci ay compétition di wane boppam mais également ci lutte avec frappe bi mu dugg ci di ci def lu am solo tey boo ma mënoon wax ci moom lan nga may wax ci moom. Euh, xam nga boo nekkee ci xale ànd ak ay xale di leen tàggat ba xale yi man di bëree yàgg ak ñoom def ak Franc amatul leen lu ma ko dolli ci wàllu bëre peut-être sportivement rek jéem a cultiver waat kooram xam nga parce que comme ñun lool la ñu yàlla mm, jaglalee ñu xool comment cultiver le corps d'une personne ñun lool lañ loolu lañ mën a def ci Franc mais du question côté bëre ñun physique bi la ñuy xool endurance bi jéem a xool li nga xam ne ay faayam la léegi ci bëri ñu ne ko moytul lii del def lii mais Franc boo xoolee daa moom lañ jox meilleur lutteur fii Sénégal en lutte simple te loolu c'est pas facile c'est pas donné à n'importe qui yaa ngi dégg ay naataangoom nag dañoo nekk ci làmb ji ba nga xam ne ku ko jëlul da ngay moytu parce que super étoile nga fi naataangoom la Tyson ngi fi naataangoom la Jordan mi ngi fi naataangoom la man nee samay boy yi may entraîné gëm gi ma leen gëm ak coono gi ñuy daj man ponkal laa bëgg bëgguma ay mbëcc mbëcc boo leen daane dañ naan moo man de bu ma bu fara kum ci jël bu la daanee da nga naan moo ko man rek ngay wax doo wax leneen mais damay jël ponkal mo xam da lay leer na mbaccum gertam yi xol li ci gertay day naaw kemb gi wattu su fra mën ko for waaw wa ko su la mais ñi nga lim ni dañ nek ay champion yam xamante tay bo leku, leen duggalé ko do leen tuddalé ko melni fra dañ naan na gëna a gëna bay waram ba ci kanam dañoo tel ci mom xam nga bo tégalé ay victoire bo limé benn benn bi jall nga lim ñaar ñaari jall nga lim ñett ñett yi nga lim ñent ñent yi nga lim juroom juroomi dal nga lim mu jall dañ naan la ki ku ko jël du la suuf mais ponkal laa bëgg ñi mën la limal nii ku ma ci am du ma leen siibale nag man manaat se mooy ñëw na ma sa mbër ak diw sama mbër ñëw na ma ah maag diw man du ma ko tontu lu may jëlal parce que man carrière mbër mi laay xool lu mu gën a toog gën a tardé man amu lu may xaar ci làmb ay xale lañ sak ngoon ñu ngi ci école ba léegi léegi nii ñoo nekk ci école bi ñoo ngi fay doog a jugéendoo donc nag man ay ponkal laa bëgg parce que boo demee ba yor cent vingt kilos cent vingt cinq kilos dootoo gën a ponkal nga nag ak ponkal la mën a tasal waaw te Franc ci ponkal li la bokk moo taxit ma lima la ay naataangoom yoo xam ne am nañ ci làmb ñoo xam ne yàgg-yàgg ñu moytu danañ daje ñu wiiri danañ daje bu leen kojee tamit danañ daje loolu kay leer na. waaw ah, kon si ci poids bi nga wax noonu sax ci laay appesantir tuuti parce que bariwul ñu gis euh, litre bu am gabarit bi Franc am daat koy boole ak benn bëre bi xarañ ci kaw bëree moom sax yaram am benn mobilité bi tey lan mooy secret bi. Franc da di xale moom yaramam te wax naa ci bu njëkk ne màggagul sax li mu war a màgg. parce que boo nekkee gone di compétir compétition bi ngay compétir ak quatre-vingt-dix lutteurs wala cinquante lutteurs wala quarante lutteurs ci bëre simple. yaa ngi dégg bi mu ñibbisee Espagne dafa ñëw rek dem compétition daa yegg si teg walisam teg saagam dem compétition dem ñaaxar lañ fa teg lépp mu jël ko kon xam nga ne kooku amul lu muy xaar te ponkal ya nga fay deseel ñi mën a limal nii ñëpp daanaka ñu ko ñu ko ñu ko ñu leen ëpp ngi foofu. te pourtant day buuxante ak ñoom 6 heures ci ngoon wala combat bi commencé minuit ba 3 heures du matin wala minuit ba ba ba 4 heures du matin wala 5 ngay bëri ak ay ponkal ponkal moo pare jox la keneen te foofu doo taamu te làmb ji mbër ak mbër dañ naan la diw ak diw te kee dañ naan da ngay toog ba ne la François Amir Gomis ak Ndel Dione ak Caaka Fay te boo nattee poids Caaka ñi ma la limal sànq ne la war nañoo bëri ñoom kon kay ku ko ci jël da ngay moytu rek. Oumé Kotsi li lima jaaxal Franc ni mu mel nii ma macha allah ngeen magul, comme bu màggee est ce dina am adversaire. xam nga boo nekkee xale. ñeme di tek sa bopp coono gëm li nga gëm xam naa jóge Espagne mel na ñeneen ñi dem tok mais ba léegi la lay wax nii doga ni ñoo doga pare école ba déggoo ma de ñoo ngi nii pare séance d' entraînement ma ñëw suñu kër yegg ngeen kon donc xam nga ne limi def bëgg te xam nga nit moelan lan lan mooy problème nit ku boo xefee ñëpp dañuy bëgg nga daanu buñ sañoon dañ lay jox combat boo xam ne nit kooku dalay daan mais yàlla mooy def gëm-gëm ci nit ki nit ki gëm boppam ku mu tasel faj la dem yoonam waaw loolu la François waaw muy xale bu ma gëm muy xale bu ma bëgg aussi muy xale bu am yar du la xool mukk siggi seen ñeenti bët tase day sëgg xam nga kooku day neex a digal day neex a corriger day neex a waxal parce que am na bëri mbër yoo xam ne tey bu ñu amoon ñetti combat wala ñeenti combat rek bu ñuy dox tali bi ubbi dënn wala ubbi wet xam bu subaa bu ñu leen daanee balaa ñoo génn seen kër mot un mois loolu su may mbër matuñu mënuñu lool su may mbër ils sont corrects duñ dem dem mukk wala bi làmb amee ba léegi diiran ba nga ne ñu ne moo def lii bërëb sàngam wala làmb loolu parce que ils sont bien éduqués à que ak la nekk di jàng mooy professeur bi muy xale bu la déggal comme ni nga ko waxee mais tey ndaanaanu bëreekat bu bu nekk rek am nga mënin tey suñu wala laajoon lan mooy mëninam non xam nga franc chaque jour mu génne le fin bu bees nee naa la franc bu njëkk tàmmul woon bot finalu ñaaxal bi dafa bot mbot mu rëy donc mooy li ma wax rek maanaam fin yi mu yor ak yaram bi ni mu mandee bëri ak ni mu moomee yaramam maanaam mobilité bi ma gis si yaram franc sax bi mu jógee Espagne léegi mosuma ko gis si franc ndax nee naa la xale la te day gën a yokku maanaam doole ji day gën a yokku yaa ngi dégg parce que eh, nit ki maanaam ça dépend sa yax ak ni sa yax di màggee xam nga am na nit ñoo xam ne mën nañu liggéey chaque fois dañuy gën a oos di gën a ñeer mais dañuy wax kongu dëgër këcc mais dafa am xale yoo xam ne seen yax mooy màggee noonu dañuy gaaw am volume gaaw am yaram mobile nag moom seen bopp hmm. waaw coach ñu def benn constat aussi ñu daal di gis ay mbër yu bëri yoo xam te ne dañu doon boole lutte simple ak lutte avec frappe euh, ku ci mel ni Mamadi Ndiaye ku ci mel ni Mbagnick mais également ku ci mel ni ab Ablaye Ndiaye ñu dem benn moment dootuñu leen gis ci arène bi tey loolu lan moo ko waral yow lan nga jàpp ne moo ko waral. déggoo li ma la arène bi képp koo xam ne ci bëri dóor bi taxaw nañu wax la yaag diw kaay bëre boo bariwul da ragal kooku déggoo ma de. làmb ji boo nekkee xale kuñ la war a booleel nee naa la làmb ji képp koo xam ne daa bañ a bal jël moroomam làmb ji képp koo xam ne bañ naa bëre te làmb ji kenn ku ne xam nga ki la man kenn ku ne xam nga ki la man loolu tax ma ne la caradaas bii ma la limal nii da bokk parce que génération bu ne am nga génération tey génération bi bi bi bi topp ci génération bi nga xam ne Ama Baldé nga ca Sa Thiès nga ca Boy Niang nga ca ñoo ñëpp ay génération yàlla mooy def ci làmb génération franc caradas ma leen ma nii ca lañ bokk ñoom léegi nag war nañu bari seen biir ku ko ci wu da nga nangu sa morom wala da nga xalaat ne sa morom da lay daal lool ko yomb parce que nit ko xam nga ma ñëwaat tuti ci question bi rek parce que ku ci melni ni ay Mamadi Ndiaye ñoom ke ak Ablaye ndjay dañ doon gis ni dañ doon allié bëree simple ak ak bëree avec frappe mais ñu dem ben moment du leen gisati ci lamb ji lool lan moko waral non Mamadi ndjay mi ngi am ay combat peut-être amna difficulté tout ci problème jeune bi mais mi ngi am ay combat mi ngi compétitif ci bëri simple bi aussi bëri dóor bi aussi mi ngi ciy bay waaram mais Abdoulaye Ndiaye moom dëgg dëgg neex yàlla ba ma gëj naa ko gis ci làmb ji gëj ñaa ko gis ci compétition bëri simple donc xaw ma lu ko téye xaw ma lu ko gàllankoor wala xaw ma dafa nekk ci beneen liggéey waaye xam nga nit ki nga gis ci làmb muy ñëw làmb moom nga mën a wax ne diw mii kat lii lii wala lii ak lii la mais Abdoulaye Ndiaye comme gëj naa ko gis dëgg dëgg lu ma wax ci moom it damay wax lu ma neex rek waaye dëgg dëgg moom gëj naa ko gis ci waaw est-ce que laajul ñu dem ba benn moment comme bu ñuy boole ba lutte lutte avec frappe ak lit simple dem ba benn moment ñu xaw a privilégier un peu lit avec frappe bi loolu est-ce que laaju ko. non lit avec frappe bi mbër yi du bëri bëri simple nii maanaam compétition d'entraînement rek la boo gisee ñuy jëm nii gën a yokk seen xam-xam rek la koo ci wax loolu la lay wax laaj leen ñoom ñëpp maanaam compétition booy gën a yokkee sa xam-xam la ci bëre parce que del xool am na ñoo xam ne ñu ngi ci bëri dóor bi kenn mosu leen daal. te pourtant bëri simple daan nañ leen téeméer yoonu juróom fukk doo dégg doo dégg doo dégg ñu leen di wax loolu mais te teewul bëri dóor bi dañ ci def seen waar te teewul bëri simple ci lañ jàng loolu lépp parce que ku ko ca daan heure ba mu la daane bu lëkkati da nga ñëw ñu rectifié la looloo tax mbëri yi bëri bëri simple naqaree wutal combat genre François ay Ami Gomis ci la bokk Obali ci la bokk boo booy lim seeni combat day naqaree kare gisoo rëg-rëg mu jógee ci Elton mënoon na amaat beneen combat mais benn combat boo xamee sax benn combat ba nga ko am at ma jàll tëgguma la mais Reug Reug taxaw na. waaw moom laa wax ma ne genre yu mel noonu benn at mi te sa combat koy calé pour 6 mois mois boo xefee balaa année bee jeex balaa nga ca yaakaar benn combat année ba jeex parce que say combat ni ñu koy calé dañ naan diw mi diw rek lañ yaakaar moo mën a bëri moom te boo xoolee supporters yi amateurs yi ñoo ciy topp di wax di topp di wax topp di bu ju combat bi taxaw la plupart noonu lay demee boo xoolee moo Modou Lo Balla Gaye ana man ana yow lay demee ana man ana yow boo combat bi taxaw yeneen combat yi nga dégg yëpp noonu lay demee mais am na ñoo xam ne seeni combat ak seeni moroom daa war a leer nañ sinon ku ci jëlul sa moroom da nga ko ragal ma la leer. waaw ah, coach bu loolu weesoo ñu def transition jëm ci beneen combat mën naa ni moo waral coow li euh, c'est un combat qui polarise donc l'opinion au niveau de Guédiawaye et de Pikine euh, parce que damay faral di wax ni kii arrêtera Boña numéro 2 à Guédiawaye après avoir piégé sa Thiès Boña devra défier Lac moo xamante ni sonal na waa Guédiawaye digënteem la diggé numéro 2 taxaw tay combat bobu yow nan nga ko gisé euh lama len di waxon rek la len di waxat ba combat bi jégué ban sumiku dama len la boña dafa sonal wa bay euh té xala la buy liggéey té limi liggéey ful lak fayda la ci def euh lak de guerre rek lima ko waxon rek la lay waxat boña néna boña lak de guerre du jaaru kay lak de guerre 2 du jaaru kay boña nak mën na am gëm gëm ndax comme gi dugg na géej waaye duggaat fa duggaat fa duggaat fa mën na yaakaar ne mën naa duggaat ci Lac da Guiers mii ba daan ko mais yaakaar naa dana liggéey liggéey bu métti de waaw loolu moom laal xam naa ko ci moom bis bu ñu demee nag ba combat yi gën a jege bis bu ñu demee nag ba entraînement bi gën a sérieux ba nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi lalu seen ruq làqatu ba nga xam ne léegi nag combat bi waaj naa ñëw ba nga xam ne yaa ngi leen di gis ah, boobaa nag di nga xam combat bi nu mu mel. Ah, waaw lu am solo nga ni jaarukaay loolu kàddu yooyu fan nga ko noonu nag dafa nekk mbër moo xam ne ci arène bii li ma ci xam mbër mu naqaree bëreel c'est un lutteur téeña mbër moo xam ne maanaam li nekk ci xel mi sax bëreegu ko te ñi ko daan ñëpp difficilement lañ koy daane du koy doo ñëw rek faxas ko nii ana man ana yow rek faxas ko mu daal parce que dafa am lecture ci bopp bi am lecture combat waaw parce que dafa tee ci li muy def gis nga mbër combat booy seet boo teeyee nu bëre bi metti metti metti da nga ci génn te moom du lu du du du moog booy ñaa rek daan na waa géej waay rek mu war a ñu yàkkamti combat bi rek pour daan booy ñaa non bu ko defee dugg ci ndëgg sërëx parce que booy ñaa da lay ci boppam booy ñaa dafa am pièce boo xam ne da koy teg daan à trois à mois di xaar nga ñëw parce que dafay nekk naan booy boobu booy ñaa parce que à trois à mois lay tegal boo teeyee ci à trois à mois yooyu boo tëjee bëri bi moom dootu xam lu muy liggéey te Lac de nee naa ko du jaarukaay. waaw Lac de nekk un lutteur difficile à manœuvrer comme ni nga waxee mais également Boy Niang nekk un tacticien tey ñu gis ñoom ñaar ñu xaw a nduroo anam bi nga xam te moom la ñuy bëree parce que dañuy faral di gis Lac day adopté benn attitude défensive taxaw xaar adversaire am euh, déglu ko ba faay am mu daal di dem mais ki nga xam ne Damier jema jema jema aspirer adversaire am jéem ko jumlo tay ñom ñaar ñu nduro anam yi ñuy bëre ñu bëri du poser question na lan moy la clé du combat ku ci nekk nan nga wara mëna mën ba génn ci xam nga lak de guerre bu bu bu démé ba bëri yow dëgg dëgg dëgg te caaxaanut normalement dans les normes combat bi warta yag moog boy ñaar pour ma jox la tuuti anecdote rek ah, père sœur Cheikh rum dumba mi ngay waxal ni de nan xam nga surtout Cheikh Sabou la mais dama ne la lak de guerre bu fekkee combat bi nam ca war a liggéey liggéey na ko nam ko war a taxawee taxaw na ko mën naa am combat bi du yàgg bu yàggee rek da koo neex moom dana toog nag déglu booy bi tuuti xool comme xale la day ñëw wala du ñëw Lac de Guiers dina ko déglu mais Lac de Guiers mënu koo déglu ba déglu ko yenn instant bu yàggee lañ daan wax Lac de Guiers day dikkaat ci donc combat boobu moom laa la bu ko dégloo plus de une minute deux minutes trois minutes Lac war a liggéey dana ko def waaw mais ñu faral di gis ni Boy do doon mbër moo xam te ne tey neexul neexul jàpp du taxaw benn place waaw tey day def ay déplacement latéral mu nekk mbër boo xamante ne tey ci mobilité am lay joué jéem a piège adversaire am gis nañ digganteem ak Sa Thiès ak digganteem ak euh, ku ci mel ni guy gi. Boy Niang nee naa la à toi à moi lay def à toi à moi ba boo ko sécuriser da nga tëj bëreem te nee naa la la muy liggéey noonu Lac de guerre moo la gën a xam ne Lac moo ma gën a ñor man miy wax yaa ngi may dégg baax. donc moo tax ma ne la bëri boobu dina ko déglu xool luy réaction am boobaa moom mu doo ko def li li nga xam ne moom la xelam moom moom moom moo doy xelam moom la dëgg waaye du du toog di seetaan booy bi ñu jëm kañ booy bi dina ko déglu dina ko seetaan parce que aussi nit booy bëreeg moom da nga jox respect jox ko cër entraîner sérieusement am récupération bu baax mais nee naa la combat bi bu ko dégloo seetaan ko quelques minutes booy bi def ay jeu de jambe am ko neex boobaa moom mu doo ko diriger combat bi combat bi li ko war a diriger Lac de ci la bokk parce que bu seetaanee booy ñaar rek bëri bi dana yàq. waaw ci foofu rek laay laay yëkkatiwaat parce que ñu bëri dañ ni combat bi dafa jot la dëggee daal réagir ñëw daal tegal booy ñaar lu metti fu mu nekk mu fekk ko est-ce loolu ànd nga ci. xam nga lag de bu dee ni muy bëree nii lay bëre offensivement bëri bi day yàq ndax am na yenn responsabilité yoo xam ne booy ñaar mbokkam dañ naan ko na nga teey booy ñaar ay mbokkam ak entraîneur am Cheikh dana ko na nga teey ndax ki ngay bëreel ñoo la gën a xam ne ndaanaan la. te nit ki aussi booy wax la dangay wax loo xam ne euh, lu baax la ci doomu aadama loo xam ne aussi doomu aadama mérité na wax nga wax ko loolu parce que Lac de Guiers aussi en aucun kaa aussi ak jaar-jaar bi mu jaar ci làmb ak fii mu toll ci làmb nii dëgg dëgg dëgg bu xoolee ba Boy Niang daan ko ma xam ne Lac de Guiers nag dëgg dëgg jaarukaay la course doguma la adversaire dang koy respecter nam lol amna mais dafa don amna combat yom ten tay il faut nga jël ses responsabilités gis nañ balle gay numéro 2 barke Demba ndjay ak Modou Lo anam bim ko bëree ba ñu bëri sax xawna na bédd est ce que jotul combat bi la Bonya ñëw abordé combat bi avec la manière woni tay boña fu fekk fa. boña xalé bu bu am doolé boko gisé ni muy doxé sax ak ni muy dawé nga xamné Meda il travaille sérieusement mais dama ne la combat bi bo bayé boña def jeu de ba paré ba nga ba Lac de Guiers sécuriser combat bi boobaa Lac de dana mën dana manœuvrer combat bi ndax Lac de Guiers combat bi da cee war a wane parce que bu ci wanul boppam su ay su ay supporteurs am man man surtout ay supporteurs ñi nga xam ne ñoom la nekkal danañ ko weddi bu boobaa. parce que Lac de Guiers bi da ko war a diriger moom ci boppam. parce que boo xoolee ba xale bu ndaw di la diriger ngay rasu wala ngay dellu gannaaw bu boobaa ay supporteurs am yàlla bu mu ci jëlee leneen nag boobaa lay gën a métti ci moom. noo tax combat ak lu mu mënti nekk di ko war a moom. dina ko seetaan à trois à mois yi ñëw parce que boo ñaa loolu la nee naa la dalay aspirer ci boppam aspirer ci ndëgg sërëg goo xam ne boo ñëwee soit am na ca xabal soit am na tafwet soit am na wicc boo xam ne bu la ko wiccee bu la bus bu la bus loo nga toog mais dama ne la. combat bi bu ko dégloo ba boo ñaa def la ba mu sécuriser ba xam ne boo Niang sécuriser na ko ba nga xam ne boo Niang léegi mi ngi au top ci combat bi ni war a demee Lac de Guiers mooy diriger combat boobaa. waaw comme ni nga wax daf cee war a wane boppam mais muy bëreeg mbër mu sob tey wane boppam boobu mun mun munu ko def te du lalu ci xeex tey bu waroon a xeex ak moom nan la war a xeex ak moom. xam nga booy ñaa la gën a xam ne Lac di gër ci lépp la pare pare na ci xeex physiquement du mbër mu ñuy vider comme ça parce que ay kombaam dafa nangoo yàgg pare metti boo ko xoolee contre modlo Lo seen ñaar nii lépp seen combat dafa metti yaa ngi dégg te Lac de Guiers aussi du mbër moo xam ne da nga ñëw rek jaar ci koom jàll. te am na feem am na manin xam nga maninu nit nag boo ko boo boo tiimee yu mel nii boo ko waxee maanaam xaaw yi sutura nit la waaye am na xeet goo xam ne boo xoolee ni mu bëri yëkk ni xaaru ko maanaam dana déglu nit ki nit ku teey la nit ku am calcul ci bëri la nit ku yàkkamtewul lu muy def la bis bu gisee bunt bu ko exploité lépp leer loolu moom leer na moom. kon su ma la déggee ci say kàddu combat bi mooy le gros test pour Boy Niang. non dina test boppam parce que dina wane safara ci boppam que dina kii taxumaa jóg boobu moom ma nga teg bëtam feneen waaye balaa ngaa teg sa bëtam fenn na nga jaar ci lii ba pare loolu am solo parce que nit ki booy wékk sa bët fenn yàlla def say combat soo tegul ci loolu ñu am ñu ñu lay proposé lijjanti loolu ba pare waaw bu lijjantee loolu ba pare ba loolu jàll ñu doo xool leneen. waaw kër su am na solo kon ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak la moo de la fin ban message ngay lancé à l'endroit de la population sénégalaise. en tout cas làmb daal moom lañ bëgg moom lañ gëm. di bañ lamb yàqu lamb daal buñ mënee fexe ba kenn bañ ko yàq moo gën li ma la wax rek chaque fois di gërëm sama waa écrit di gërëm waa parce mbooloo di gërëm waa sama waa famille sumay may mag ñoom góoroo ñoom jibi ñi nekk ci kër gi ñi ma nekkal suma rak Cheikh suma frère Njaga Jaañ ak sen ba ak Omar mbaw mu nekk Lyon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm di gërëm waa Guédiawaye Infos parce que day am loo xam ne bu ko nit soxlaa ci yow nga koy wax mu ci am njariñ di ko sant di ko gërëm da ci am solo waa ngi gërëm waa Guédiawaye Infos di gërëm SBK di gërëm aada di gërëm seen collègue yëpp di leen sant di leen gërëm baax jërëjëf. waaw bokk internet yi mu doonoon waxtaan bu am solo bi nga xam te ne waroon nañu ko am ak le coach su Mame euh, mu doon daanaan comme ni mu koy faral di waxee nekk kàngamu làmb parce que saa yu àddoo rek euh, ay kàddoom day neex a taataan. Euh, waxtaan nañ waxtaan bu am solo euh, mu daal di revenir ci aspect yu bëri au sein de de son écrit mais également ñu projeté wu jëm ci combat bi nga xam te ne naan essence yi c'est le combat l'objet de tous les convoitises muy diggante Boy ak Lac de numéro 2 donc di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez prochainement di sant également suma technicien yi ku ci mel ne Abdoulaye Diop Sané ak l'autre direct Bekay Koundoul